nee na ma ma ma jël sama balante ko ci dënn bi ni ko dama bëgg turki bii nga may ma ko mu ni ko mënuma ko mu ni ko jaay ma ko mu ni ko mënuma ko mu ni ko sarax ma ko mu ni ko mënuma ko sëñ Muxtaar Touré ni ko dama teemalaa jaay mbuumu man mi saam si dafa ni bëgg mu ne yow lan moo tax nga nangoo jënd turki bi te laa jënd mbuumu mag mi nee ma ne ko yow lan moo tax nga nangoo jaay mbuumu mag mi te nangu laa jaay turki bi sëñ sëñ Muxtaar Touré moomee moo ko ni nag turki bi sama kilifa dama ko rafaatale mu ne ko nu mu tudd mu ne ko deñ ko wooye Ahmadu deñ ko wooye Bamba saam si la ko moom laay seet mu ni ko foo jóge sira fànne ko ca yàlla mu ne ko foo jëm mu ne ko ca yàlla sëñ Tuubaa ko kon looy wut mu ne ko yàlla kon kii tumu rankiwul woon moom